bëggee sama gars yi salaamaaleykum waa Sénégal tey dama ñëw boo leen gisee sama abima seen xel dina dem si làmb ku wax làmb wax komba ku wax combat sa xel dina dem si mbër tey si mbër yi laay ñëw digganteeg Modou Lo Ama Baldé nañ wàcc si si gars ñu xool seen réaction luñ siy wax. rồi Kayıp. Sanmıyorum öyle sol öyle như vậy rồi. waaw waaw. jaam. lépp jaam ak kay. naka waar bi nag. sant alhamdulilah. nice. noo gis si combat Ama Baldé Modou Lô taxaw na. ah loolu moom combat waaw combat bu doy waar la moom. waaw. ah mm. salaamaaleykum. maaleykum grand combat Ama Baldé Modou Lo dafa taxaw dama la bëggoon laaj loo gis si combat boobu. oui combat bu neex la rek combat bu neex la vraiment parce que Sénégal yëpp ñoo ko bëgg mais nag Modou Lo mooy daaneel de waaw dafa leer kay combat Modou Lo moo ko mën fuuf nekkul moroomam sax. salaamaaleykum. waaleykum salaam. grand Modou Lo Ama Baldé taxaw na léegi yow dama la bëggoon laaj loo gis si combat bi. combat Modou Lo Ama Baldé ah combat bu neex lay doon parce que ñaar mbër yëpp ay mbër lañ. mais en tout cas man moom ni ma gisee moom moo gisee dafay samay analyse moom Ama mooy gagné combat bi. mooy gagné combat bi. parce que boo gisee moo wax loolu seen seetaan naa benn interview mu naan temps seen temps booy amoon na Modou Lo benn combat combat bu neex combat bu métti woon Modou Lo daan. combat mbapat la woon. waaw combat mbapat la woon xaw na yàgg tuuti mu ne lii revanche lay doon ci moom donc occasion la ci moom profité si keneen si combat bi waaw gis naa tamit noonu lay demee incha waaw. yow xam naa tey dama lay dugal si wàllum bëre. wàllum bëre ah diggante Ama Baldé Modou dafa taxaw dama la bëggoon xoox laaj loo siy sànni. Ama Baldé ak Modou Lo ah. ah Modou Lo moom la moom moom Ama Baldé yomb du yomb de. barke yàlla waaw kii lay doon de combat bu rëy lay doon. waaw man gëm naa ne moo koy daan quoi parce que moo ko ëpp kii quoi moo ko gën a mag moo ko ëpp expérience yi affaire yu bëri waaw. maaleykum salaam. grand dama gis combat Ama Baldé Modou taxaw na. waaw maa ngi koy dégg waaw xam naa ne combat la boo xam ne nii nit ñi yàgg nañ koy soxla trop lu supporter doon laajte la ba yàlla daf na instant yi tëgg nañ ko waaye nag xam naa ne dana doon combat boo xam ne nii bu métti laay doon parce que Ama xale la tam Modou Lo itam nekk nañu koo xam ne nii duur mbër mu ñuy. saax saaxee si làmb ku ne xam na ko si làmb ji wax dëgg yàlla combat bu nekk am na ko si wax dëgg yàlla xam naa ne nag dina nekk combat bu métti moom salaamaaleykum mbër laay sedd mbër. mbër waaw ñi fi nekk ñëpp ay mbër. ah waaw léegi comment Ama Baldé Modou dafa taxaw. waaw leen laaj yéen loo leen si gis ak loo leen si mën a sant. salaamaaleykum. waaw combat boobu ñun dañuy wax rek rek combat boobu mooy que le meilleur gagne ndax ñun ñoom ñaar ñëpp mbër lañ mais nag Ama. Ama ñun xam nañ ne instant bi Modou su moytu tuuti Ama dara. loolu moom du ma ko nëbb quoi mais bii moom dama kaa ragal combat bi Modou Lo Ama dama kaa ragal neexul ba neexul. nee nañ Modou Lo su mënul tuuri Ama da kay daan. yow loo si wax. joxal gaay joxal yeneen man a <laughs> moom Modou mooy sama mbër quoi wax dëgg fi waaw Modou mooy sama mbër. waaw incha allah dañ koy daan mooy jël boobu benn werante. waaw ah, yow Modou Lo day daan ah, <laughs> te ndam rek moo tax mu nëbbi quoi incha allah. would ah. you marry me? Bob, if you may make it backward. Bob, if you may make it backward. Would you marry me? Would you marry me? Bob, if you may make it backward. Bob, if you may make it backward. Would you marry me? Would you marry me? Bob, if you may make it backward. waaw. yow léegi loo si gis loo si mën a sànni yow. waaw combat bi Ama su jàppee nii. combat bi dina yomb moom day nax boppam. parce que moo moom yaa ma gën a xam soo xoolee fu mu jaar waaw ñu ko mag wala ak moromam yi. jàpp nañu Modou Lo nooy neex la wala kii mais tamit am na combat bi. am na combat. waaw am na combat bu rëy sax. waaw. waaw mais Ama Baldé booy la te am na doole. te kee nee na Ama Baldé mooy daan. yow da ñëw ne Modou Lo mooy daan. non xalaatam la wax rek. loolu moo ko mën fuuf moo ko mën mais boo gisee Modou Lo daan na Ama Baldé si mbapat léegi lii daa mel ni combat revanche la. waaw revanche laay doon xam naa ne parce que jamono ñu toll ni Ama dafa am lu soxla Ama dafa am lu mu soxla te xale la ndaw la tam te Modou Lo tam comme nu ma la ko waxee rek Modou Lo ku ko bëgg a daan ku nekk da nga am fit te doo du du doon tàppe daal moo koy daan Modou Lo mbër la moo xam ne ni ku ko bëgg a daan ku nekk daal faaw nga am fit daal. yaa mbër mbër kaay kaam kaam kaam. waaw jaam ah waaw daf jaam kay. mais naka affaire yi. combat Ama Baldé Modou Lô taxaw na yow loo siy sant. taxawal fii combat bu neex la moom. waaw combat boo xam ne moom laa askan wi soxla woon moom. boobu moom combat bu neex la moom wax dëgg yàlla. jëf sama gars yi jaajëf sama gars yi gis neen comme gars yi nuñ ko waxee rek tey la woon si seen émission Doo Daké du chaque jour ñooñu nii di leen jéem a satisfaire si lu leen bëgg ñoom seen ginnaaw bëggee sama gars yi. sama gars yi ñii ñooy waa Ama Baldé ñii ñooy waa Modou ah, léegi dama gisoon ah. waa Ama Baldé yéen loo leen di wax waa Modou te loo leen di xaar jouru combat bi loo leen nar a def Modou leen ma gars dañ koy supp kañe. Ah. Ama da koy dóor mu daan. Modou day dóor Ama. Modou Lo mu daan. yow gannaaw la waaw ah, Modou Lo moom ancien la de. mais nag Ama Baldé moom ñafekat la quoi ngi koy ziar di ko déggee. xoolal toujours mooy loolu. daaw waa Modou Lo la. ah dara parcelle ba ay taw si yaram Modou ah. daan rang. yéen <laughs> Modou day soob. day soob mu daan barki Rasulullah. Modou Lo du moromu ñii quoi. xoolal Modou Lo mbër te Ama du mbër Ama xale la Modou Lo papam la. nee naa la combat bi moo nar a doon combat du siècle maa la ko.